wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokki jullit yi ñuy seetaan asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu am mbégte dellusiwaat ci émission bi nga xam ne ci koor gi yëpp ñu ngi ko jagleel sunu yaay ñaari yaay yu tedd yooyu sunu yaay xadijatu ummul muminin ak sunu yaay aïchatu ummul muminin xam naa semaine bii nag incha allah ci la ñu fas yéene jeexal li nga xam ne préparé woon nañ ko ci dund suñu ay Khadija waaye du li li nekk ci ay ngëneel ci moom ak li ko yàlla defal bu nekkoon suñu giir gi dund di ci wax tamit du jeex moo tax euh, dañuy léeg dañuy woo ay boromi xam-xam ñoom it ñu ñëw bay si seen waar tey jii ci la ñu dalalee imam Aboubacar Traoré abu Aboubacar euh, dootuñu ko présenté waa Al Amin parce que ñëpp xam nañ ko tey bari na ay kilifa ñu dem jàngi alquran fas yéene mokkal ko moom moo tax ndax émission bu rëy bi mu fi defoon keneen ki nga xam ne moom lañu ñu fiy dalal tey mooy Seydina Omar Seydina Omar Ciss Seydina Omar nag moom yàlla daf ko may ci domaine yu bëree baree baree bëri daanaka euh, tey li nga xam ne sunu maam yi moom lañ siwee woon àddina bi xamee leen ko muy littérature arabe mooy wëy tagg yonent bi wëy tagg lislaam tagg alxuraan wéy moom yàlla da ko cee may may gu yéeme yéeme macha allah mu taxaw ci nag lool di ci liggéeyal diine ji di ci liggéeyal lislaam tey moom ci lañ ko dalal ci émission bi euh, rax si dolli sax moom bi ñu yëkkatee rek ne dañuy def euh, émission yi yëpp ci koor gi ci yaay xadijatu ci la daal di def benn xasida bu rëy rëy euh, jëmale ko ci sama yaay jooju moo tax sunu yaay jooju nga xam ne yaay dootul mel ni moom ñu am mbégte dalal ko tey moom wax dëgg yàlla eh, li gars yi di wax naan suñu yoroon ñay sax dinañ ko ko may parce que daf ñoo taggal suñu yaay te fii ku ñu tagg sa yaay mbaa ñu tagg sa maam nga mayee <laughs> mu def xasida bu rëy boobu noonu kon ñaari gan yooyu ci laa am fierté eh, dalal leen ñuy royukaay di ay boromi xam-xam eh, di di di ñoo xam ne vraiment fu ñu teew rek lislaam siggi fa Cheikh Aboubacar mooy jumaa ji nga xam ne moo nekk Colobane mooy mooy imam bi foofu di jiite taraweex yi di imam bu mag a mag waaye tamit nit ñi xam ko champion la ci champion Sénégal la ci wàllu taekwondo ah te ci këmf mooy champion bi moom dëgg la nitu alxuraan la waaye médaille yi mu indil Sénégal ci ci ci ci këmf la ko indil kon ab champion moo toog kii tamit champion la yow yëg indeegoo médaille foofu waaye tamit <laughs> macha allah Euh, Cheikh Aboubacar salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasira mm-hmm. ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala di julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala may ñu dégg ak topp defal ñu jàmm muur ñu ak yërmandem waaye nag barkelal na su lépp lu ñuy dund lu ñuy def lépp lu ñuy yëngu rek yàlla muur ñu maanaam accompagner ak barke di nuyu Sénégal yëpp di nuyu yow di marhaban marhaban ahlan wa sallam Seydina Omar waaw eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi eh, mm-hmm. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa eh, kër di leen wax ni yaa idaam qawmun kiram ahlu siyaam sabran dawaam lakum jinaan fiha rayaan rawxun wa rayxaan nuurun wa ayaan loolu daal lañ leen di nuyu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa ne bu ñu duggee foofu rek dootuñu fa génn waaye comme tey ci sunu yaay lañ jëm léegi euh, xam nga kooru ren gi euh, ci al amin dañu décidé ne ñaari jigéen la ñuy waxtaanee diiru koor gi yëpp ba mu jeex muy yaay Xadijatu ak yaay Aïchatu te ñëpp xam nañu ne sax euh, koor gi dina jeex te ñoom seen dund du jeex jàpp naa ne bu ñu waree dina am yeneen émission yoo xam ne yëpp ci yaay Aïcha ci lay aju <laughs> léegi euh, yow bi ma tàmbalee yaay Xadijatu rek da ngaa daal di jël sa xalimba uh-huh. commencé def taalif uh-huh. lan moo la yëngal ba nga am cofeel ci yaay Xadijatu umul muminin wallahi euh, imam Mouhamadul Amin damay kontaan pour tontu boobee laaj mm-hmm. dinaa ko tontu ci ñaar waaw bi ci njëkk mooy que Mouhamadul Amin mii toog a soññ mu ne ma faw nga bind ci yontu yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam ci laa binde woon ne lan am daxa Mouhamadan bi qasaidi hmm. bal am daxu qasaidi mu Mouhamad yi allahu akbar bu ma wax ma ci yaay Khadija liñ naan awatiful ulama i tatakallam hmm. ñoom seeni seeni sentiment day wax hmm. ci laa xam ne foofee la jëm yonent yàlla Muhammad lañ ko tuddee te lépp lu taq ci yonent yàlla Muhammad daf koo bëgg alayhi salaatu wasalaam euh, alquran daf ñu ne yonti yàlla muhammad moom moo ñu gën mm-hmm. moom nga war a gën a bëgg ni ki sa bopp wa azwaajuhu ummahaatuhum mm-hmm. ay soxnaam sunuy yaay lañu mm-hmm. dañ leen a war a jox xorma boo xamante ne sopp leen sopp boo xamante ne ñoom la ñuy gën a sopp ni ki sunu yaay yi waaw te ñu gis ci jamono jii tey jii dañoo réere seen siira ak seen i seen li ci gën a mooy que ne am na ñoo xam ne sax xamuñu sax seen i tur yi la nit ku xamul tur way juróom bu jigéen nan nga koy tuddee wa say xanaa dëgg la dëgg la kon waaw mën nañ ko tontu ci ñaar yéen waaw dëgg la léegi xam naa ne euh, dañuy daal di dugg ci ci ci ci xasida bi mm-hmm. xasida bi mu ngi tudd ummul batul ummul batul ummul batul léegi dama bëgg nga jàngal ma xasida bi mm-hmm. ñu jéem ko tënk Cheikh mm-hmm. Aboubacar def ci ay commentaires yoo xam ne ak bind yi ñu ci mën a génne macha allah kon euh, ummul batul mu nekk way juru Euh, Fatima. batul mm-hmm. suñu ko waxee moom mooy Fatima. Mm-hmm. jaamukatu yàlla boobee nga xamante ne moom moo niru Sayda Mariama ci lépp di mm-hmm. way juru Isa bu jigéen. noonee la ñu tuddee xasida bi. fas yéene cee woy. sunu yaay Khadija. di ko may béppi jullit bu jigéen. ñu ne lamma madaxtu bi shi'ari umma fatimatin faadat mawariduhu naqiyan kada atira. umma albatuli wa man faadat bi taaha huda زوجا حبيبا وخير الخلق بلا مرى أم الكرام وزوج المصطفى المجتبى خير النساء قصيدي إرثها وقرى آوت كما نصرت نصرا كذا بايعت كانت لإسلامنا في بدئه مصدرا ترقى الهياكل سخورا وصاعدة نحو الحراء وما فيه حرا أخترى ترقل هياكل صخورا وصاعدة نحو الحراء وما فيه حرا أخاطرا حتى استحقت بشارا قصرها المطرب نالت مفاز جنان يا لها دورا كانت خديجة للهادي حبيبته حين الحزازات تهديئا وخير جرى حبا وحنانا كانت لها صدف مكنوزة الجلم فيها له دررا كم لخديجة كم لخديجة من فضل بلا فخر أقمارها ماتوا قالوا به أبترى في كوثر السور في كوثر الصور أعطاه خالقنا رباه مكروه rabbaahu rabbaahu mukrimuhu haqqan lahu nahra hmm. aynaaya bakat hmm. aynaaya bakat wa jaadat dam'a man faqadat haamid hmm. diyaara bani lawni bani nuuri salla al-ilaahu ala al-mamduuhi fi nnuuni wal aali wa sahbi kullun bihi nasaru macha allah ci tënk ci arab daal waaw barakallahu fikum <laughs> waaw waaw waaw waaw ndeysaan kam li xadijatin min fadlin bila faxarin aqmaaruha maatu qaalu bihi abtara fi kawsari suwari aataahu xaaliquna rabbaahu mukrimuhu xaqun lahu nahara Cheikh Abou Bakr xasida bi liir nga ko lan nga jàngee ci xasida bi xasida bi dafa riche ba nga xam ne xaw ma sax fan laa si tàmbali. <laughs> waaw <laughs> macha allah riche daal daanaka tënk na lépp daal. waaw lu ñu bëggoon waxtaanee. Mhm. sànq yaakaar naa yaa ngi koy wax. dëgg la su ñu bëggoon euh, waxtaanee ci xasida bi. Mhm. par bay di ko jël par benn par benn yaakaar naa benn rek doy na émission. dëgg la waaw que euh, soxna soosu suñu yaay soosu. Mhm. Euh, daanaka moom mooy école école yi. dëgg la waaw que moom ci moom la école yëpp sosoo. ndax képp kuy jigéen ju baax rek moo ci moom ngay roy mhm. xam nga wa azwaajuhu ummahatuhum mhm. léegi azwaaju nabi tamit umma um um moom mooy kan ummuhunna mooy kan mooy sayyidatuna Xadija ajib ajib fahmun daqiq mi ngi noonu ajib ñoom ñëpp suñuy yaay mooy soxna yeneen sallallahu alayhi wasallam mais mhm. soxna yeneen ñoom ñëpp boo leen dajalee seen yaay mooy sayyidatuna Xadija allahu akbar fahmun ajib wallahi allah waaw waaw macha allah fatahallahu alayk amin amin macha allah kon sayyidatuna Khadija waaw dafay soxna soo xam ne mhm. soxna su yéeme ci côté yëpp mhm. soxna su mat soxna mhm. li gën a yéeme ci sox sayyidatuna Khadija xool yeneen sa alayhi wasallam li ko yàlla may ci xudra ci capacité si force si côté boo xalaat nag côté yëpp nag côté physique côté mental côté iman foi mais benn soxna soosu doy ko bu munu ko woon boole beneen soxna mënu koon booleeg beneen soxna Xadija dund nag yenente ba génn àddina mhm. yeneen salaasam boole koog benn soxna parce que fu yenente bu xool rek Xadija fees fa dell mhm. dara du manqué dëgg la kon soxna soosu. suñ ci bëggee dugg waxtaan ci moom rek. Mhm. Mhm. dañuy gëlëm dañuy réer day day mel ni rek nga yóbbu ma ci océan Atlantique bi rek nga ne ma féeyal. waaw waaw allahu a fi mu toll loolu moo ma dal. allahu akbar macha allah. kon bayit yi nga xam ne Cheikh Oumar préparé na ko. waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla yokk ko xam-xam yàlla mhm. gën koo. kattanal mhm. ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci diine ak ci mhm. shiara ak ci mhm. wàllu bay ci tooru lislaam ak âge bi bi mu am dégg yàlla ñaanal ko faratal su ñun ñëpp dëgg la ñaanal ko moom faratala su ñun ñëpp kon euh, sayyidatuna Xadija mi ngi noonu foofu laay duggee ci moom ci bayti yi Cheikh Omar xam nga Cheikh Aboubacar dafa wax wax ju rëy daf ne Sayda Xadija mooy madrasatul madaris wala ummul madaris gis nga Shawqi nee na al ummu madrasatun al ummu madrasatun ida ahdattaha ahdatta chaaban tayiba al araqi dégg nga ummahaat yu baax yëpp ay madrasa lañ waaye nag ummul madaris waaw ummul madaris mooy Xadija loolu vraiment déggin bu bu bu bees tàq la tolluwaay boobu waaw soo xoolee moo ñuy delloo ca waxu Warqat ibn Nawfal mhm. Euh, xasida bi mu mujjee wax ci àdduna bi muy génni àdduna mhm. mooy fa mu tolloon ak xadija mën nañu jàngal xasida boobu abiyaat ci xasida boobu waaye wa bismillah warqatu na nawfal balaa muy génne àdduna boobu ñu bañ a fàtte silma xana mhm. màggat na ba mënatul dara waaye xoolal la mu wax ci yaay xadija ak yonent yàlla muhammad la jastu wa kuntu fi dikra la zuja mhm. li hammin taalama baatan nasija wa wasfin min xadijata baada wasfin faqad taala intidaari ya xadija bi anna muhammadan sa yasuudu fiina wa yaxsibu man yakunu lahu xajija wa yadharu fi lbilad diyaau nuurin yuqimu bihi albariyatu an tamuuja fa yalqa man yuxaaribuhu xasaara wa yalqa man yusaalimuhu funuuja fa yaa layta ida ma kaana daakumu shahidtu wa kuntu awwaluhum wuhuuja wuluujan fi lladi karihat quraysu walaw ajjat bi makkatiha ajija fa in ab fa in yabqa wa abqa takun umuru yadajju lkafiruna laha dajija wa in ahlik fa kullu fatan sa yalqa min al maqdaari matlafatan xaruja waaw barakallahu fiik macha allah macha allah kon loolu it day dellu ci tolluwaay bi xam nga xam nga xam nga Cheikh Cheikh na Omar léeg ñi may seetaan ñu jéggal ñu parce que tamit déeg boo yéeg boo ànd ak nit ñoo xam danoo yéeg mënuñoo wàcc <laughs> <laughs> man may jéem a yu xamtu ko pour ñoddi leen ngeen wàcc waaye mais alhamdulilah mais dafa am benn bayit boo xam ne mhmm. euh, ci biir xasida bi danga wax ne mhmm. tarqal haya hayakila saxuuran wa saaidatan nahwa alxiraa wa maa fihi xarran axtara lan nga bëgg a wax foofu dama ne tarqal hayaakila saxuuran wa saaidatan nahwa alxiraa wa maa fihi xaran axtara pour ma firi ko yóbbal la ci bépp soxnay jullit Khadija mm-hmm. yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam mm-hmm. ñun ñëpp xam nañ ne balaa yàlla di ko yónni mm-hmm. yàlla def ko bëggaloon wéet day dem ca montagne u Makka ya ca jabalu Xira mu wéet ca xunt wa moom kese def na ko ñetti atu yàlla yàlla door ko yónni mu doon fa wéet weeru koor gi yëpp moom kese moom moo fay nekk su nekkoon soxnaay tey yii lu la fa dal dal naan xamoon naa ko waaye xoolal dafay nekk naaj bi lu mu tàng-tàng lu mu guddi guddi dina xuus ci lëndëm bi moom mm. sayida Xadija mm. pour yóbbul yontu yàlla Muhammad añam moo tax ma ne tarqaa mm-hmm. ak lu mu sori sori mm-hmm. day dem mu jéem a yéeg ci kaw montagne wa mm-hmm. tarqaa day yéeg alhayaakil moom mooy bërëb yu kawe yooyu di montagne yooyee saxuuran ci ay xeer yoo xamante ne wa saaidatan yu kawe naxwa alxiraa mu jëm ca xuntu woowee nga xam ne fa la yonent yàlla muhammad doon def toog di def taabudu layaali di wéet ak yàlla buur bi subhanahu wa taala di xalaat ci li nga xamante ne moom la ay nitam nekkee di xalaat ci xalqu samawati wal ard wa ma bayna wa ma baynahuma di xalaat ci kimtaan yàlla buur bi subhanahu wa taala xadija daanul wax ne fii laa koy dencal reeram ba mu ñëw day yëkkati reer bi fekk fa yonent yàlla muhammad day dem xool ci lan la ti yàlla muhammad nekkee xoolal la ma ko tëjee wama fiihi xaran ak la fa nekk ci tàngaayu yooyee yooyee montagne ak la fa nekk ci lan lépp loo xam ne mën na koo gaañ mën na dox jaan màtt ko mën na dox comme soxna yi léegi li ñuy wax ñemewuma yoon bi wama fii xaran axtara ak mbir yi nga xam ne ñoom ñoo mën a lor jigéen te ñu nekk ci yoon bi waaye day dékku lépp pour fekk yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam loolu laa doon junj ci boobe bayt te xoolal foofee mhm. la ko Jibril joxe woon euh, melokaan bu rëy ba garaat bu rëy ba mhm. ci euh, effort yooyu mu doon def mhm. parce que jigéen nga togg andil sa borom kër dafa rëy mu lekk ba pare ni alhamdulillah ci kaw loole la yëkkatee bool di ñëw ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xoolal foofee la jibril ñëwee ci yontu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ko xadija ngi nii di ñëw ak bool bi waaye xoolal arrahmanu ala al arshi stawa yàlla man nekk ca kaw asamaan ca juróom-ñaari asamaan moom mu ngi nuyu xadija su xadija yegg see yow yontu yàlla muhammad ne ko yàlla nuyu na ko te su ñëwee ne ko man jibril itam nuyu naa ko mhm. mu nekk azawjal wahidati leti mhm. yàlla buur bi subhanahu wa taala nuyu na ko ba pare mu ne su yegsee mhm. ne ko yàlla kontaan na ci moom ba jox na ko appale ci aljanna allahu akbar subhanallah loolu lay junju ci eh, kii bi ma ne hatta stahaqat bisharan qasruha almutribu naalat mafaza jinaanin yaa laha duura ci tënk daal imaam wax dëgg wallahi barakallah Seydina Omar Cheikh Aboubacar xam nga xasida bi comme ni nga wax rek bu ñu doon jël bayit par bayit mhm. dana jeex mhm. eh, émission bi dana jeex te duñ ko mën a jeexal mhm. mais Seydina Omar dafa wax ci biir ne kaanat xadijatu lil haadi xabibatuhu hiina alxazazati tahdi an wa xayrun jara c'est-à-dire xadijatu dafa nekkoon soppe ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xiina alxazazaati tahdi an wa xayrun jara bu jafeñ-jafeñ yi amee problème yi taxaw xadija mooy taxaw dalal ko dafa nekkoon daal yiw wuy sotteeku rek moom xadijatu bayit boobu lan nga ciy commenté waaw bayit boobu bu ma ciy commenté mais dafa am aaya boo xam dafa ñëw ci alquranul karim te Khadija moo njëkk a aaya bi waaw fekk aaya alquran bu wàcc aaya bu wàccagul ci alquranul karim waaw mooy maa waddaaka rabbuka wa maa qala waaw ah, suñu borom ne ton Seigneur ne t'a jamais abandonné ni détesté est-ce que parce que yéen saa sallam ba mu jaaxlee jommi mhm. yaakaar ne moom torox na fu mu toll ni moom dara dootul sotti mhm. moom daal moom perte na réseau mhm. amatul repère torox na alku na ko xamee ñun ñëpp ba mu gisee Jibril fekk mosu mhm. koo gis mu doon lu bees tàkk ci moom mhm. mu jaaxle lool mosu koo gis mhm. mais Sayyidatuna Khadija foofu bu nekkoon comme jigéen ñu ëpp si jigéen nu ñuy mel keroog mission l'islam foofu lay yem parce que dina ko ne ah da nga da da nga da da ngaa sob rek wala da ngaa nangam rek waaw boo toogoon ci kër gi lii yëpp du la si fekk waaw bu guddi jotee wala nga daal di génn dem ci àll bi ci xur yi ci kii nangam ak sàngam bàyyi ñu fi moo taxit nag gisoo goo dara sax boobaa nag moom mission bi dafay yàqu. dëgg la mais xoolal nu mu ko dalalee rek. Mhm. mu dalal ko ne ko yow yàlla du la toroxal mukk yow. Mhm. yow parce que yow da ngaa baax yow da mhm. ngaa maanu da ngaa da ngay waxkatu dëgg nga. yow da ngay jokk mbokk di wax ay qualité am di ko motiver. li ñuy wax euh, source de motivation dëgg dëgg dëgg keroog loolu la teg ci kanamu euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom Seydatuna Khadija motiver ko chargé ko ba nga xam ne yeneen sallallahu alayhi gisatul lenn lu dul rek moom. takkaat ndiggam rek. foncé dugg si champ bi dem ci action dëgg la dëgg la kon Seydatna Khadija ba mu hmm. waxee kàddu jooju ne ko yow yàlla dañul ci yaw te fàttewu la te bàyyiwu la jéppiwu la hmm. alxuraan wàcc wax même aaya bi mooy wadduha wal layli daa saja hmm. maa waddaaka rabbuka wa maa qala kon Seydatna Khadija moom la kàddoom jëkk jiitu alquran que Seydina Seyd Seydina Omar. xam dañuy ne Omar ay kàddoom yi bari ñëw na mu wax mbir alquran ñëw confirmer ko. ñëw wax même aaya. wala mu wax mbir alquran ñëw ànd ak moom. Uhuh. loolu gannaaw bi mu duggee ci lislaam lu yàgg la loolu doolu am. waaye ci tàmmali lislaam nga xam ne ay alxuraan wàccagul alxuraan tàmbaleegul wàcc si boppam sax si la Xadija wax loo xam ne dafa déppoog alxuraan alxuraan dégg kon soxna soosu nekkul soxna su ordinaire beneen moom mooy yem sallallahu dafa daan dem di wéet ak boroomam mhm. parce que tey loolu moom ñun ñëpp nañ ko xam waaw képp koo xam ne bëgg ngaa egg ci borom bi wala bëgg ngaa réussir si dara lu mu mënta doon même bu dee caaxaan sax dëgg la foog nga ñeme wéet ak sa bopp dëgg la foog nga ñeme wéet ak sa bopp solitude moom foog nga ñeme ko moo tax kenn ci borom xam-xam da wax ni mhm. la nuit est ombre cette ombre symbolise la méditation mais méditation boobu li la kay may ñett la il faut nga ñeme wéetaay la solitide mhm. wala ñaar tam moom mooy ñu ñu tëj la nga nekk ci prison foo xam ne kenn du la gis waaw beneen bi moom mooy kay moom mooy nga tukki génn mhm. nekk ci yoon yow kese ba nga nekkee si yoon yow kese nga nekk si tukki moom nga xam da ngay affronter sa bopp mm-hmm. affronter nature bi ne mm-hmm. na ñetti étape yooyu day da lay pousser yow mm-hmm. ngay xalaat ngay médité nga mën a egg si dimension yi gën a kawe ci ci ci ci ci ci asamaan moo xam septième ciel la moo xam nga weesu ko parce que doomu aadama amul limite yàlla créewul ko limite ne fii ngay yam déedéet dafa ubbi lépp ne ko lépp loo def rek maanaa foo yam rek ci yow la dépendre waaw foo yam niveau boo yam rek ci yow la dépendre waaw yeneen salaa salaam nekk ci voie boobu Xadija freiné wu ko mhm. freiné wu ko mhm. mais mu ubbil ko yoon bi xalal ko yoon bi defal ko lépp mhm. defaral ko autoroute yoo xam ne bu ñuy dee dem am benn embouteillage bu ko tee tey ci domaine yëpp ci côté yëpp nag muy sacrifié wu ngir moom nga xool ñaari niveau yooyu maanaam ci wàllu bu ñuy jàngat àddina tey ñu ne ni maanaa dañuy ne dërëm ak dërëm ñooy ànd borom milliards yi borom milliards la ñuy àndal Khadija na Khadija nekk milliardaire ci jamono jooju donc homme euh, maanaam femme d'affaires boo xam ne moom mm-hmm. daanaka kilifa yu mag yëpp dañ doon rêvé ñu denc ko soxna mm-hmm. sayyidatuna Khadija yeneen saa sam nekk koo xam ne jirim la mhm. gis ngeen dundam ak yooyu mhm. ba pare am amam demeewul noonu li tax sax mu dem liggéey ak sayyidatuna sayyidatuna Khadija lan moo ko waral mhm. parce que dafa métti woon seen côté loolu moo ko poussé pour mu dem ut liggéey far ñu proposé ak sayyiduna Muhammad xam alayhi wasallam fekk moom daan na jàngat ay mbiram sàng yaa ngi wax ni Euh, mooy bi ñuy xabaar ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam dina ñëw te bu ñëwee qualité yi muy am ak nu muy nekkee yeneen ak yooyu mhm. xadis xadis bi mu déggee wax jooju mhm. Mhm. daf si bàyyi xel dafa dugg ci noppam mu téeku mais jigéen yi ah. nekkoon ci xew-xew boobu yëpp parce que ah. benn xew-xew bu amoon la boobu ah. xadisa demoon participer si ñu naan jaahiliya daan nañ ko def eh, ay daje mm-hmm. mais bu mu déggee wax ji moom dafa dellu wax bi daf ko dégg déglu ba pare dégg ko mais jigéen yi fa nekkoon ñoom ñoom dañ ko déglu mais dégguñu ko moom mu denc wax jooju moo tax bi ñu ko proposé Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam rek def ci sawar lool. Mhm. léegi Seydina Mouhamad ak cas social am vie sociale am moom nga xam ne amul woon dara nekk pauvre. ak Khadija fa mu tolloon. Mhm. ñoom ñaar ñu mën a ànd léegi xoolal Khadija nu mu wàccee boppam wàccee niveau am fàttali ko yàlla joxoon yëpp ci mhm. alal. ak nu mu suyee woon Makka nekk jigéen joo xam ne mel nu ko neex. ci jëmm ci taar. ci forme ci lépp nag bàyyiwul dara mhm. moo tax ñu ne dafa feesoon bëtu yeneen sallallahu alayhi wasallam moo tax ba mu demee mhm. soxna yi ñëw nekkoon nañ ay soxna dëgg-dëgg mhm. mais mënuñu woon ni Khadija ba yeneen da daan wax ca ci Khadija ba Sayyidatuna Aïcha daan am fiiraange en tant que jigéen loolu seen naturel mais xoolal lam mu ko tontoon ne moom moo ma dimbali bi mu ñëpp doyadale mm-hmm. moom moo ma dimbali ci alalam ba ma ñàkkee moom moo tax lislaam egsi fi moom moo tax moom moo tax moom moo tax mm-hmm. kon sayyidatuna Khadija euh, ci wàll boobu taxawaay boobu nga xam ne taxaw na ko yam sallallahu alayhi mm-hmm. nga xam ne moom dafa nekkoon ku amoon alal lool lool am daraja ba pare egg ci niveau joo xam ne ci biir màkk wala ci golf bi ci boppam koo xam ne dina jafe lool bu fekkoon tey si dañuy wax ci nit ku naturel nii rek dina jafe mu mën a ànd ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye mu mag ko ëpp ko alal ëpp ko daraja maanaam si jamono jooju nga xam ne ci feeñagul mhm. boobu feeñagul parce que risaala bi ñëwagul ba mu siiw mhm. mais mu bàyyi yooyu yëpp fàtte yooyu yëpp ànd ak yeneen saa sam lan moo tax parce que ay jikkoom mhm. ay qualitéem na mu mel moom moo tax ku dëggu la ku baax la ku am ay jikko la ku ay qualité la nit ku modèle la mu topp ko ci loolu fàtte la nga xam ne moom moom la am ci ay daraja yooyu fi may jeexalee point boobu moom mooy gis nañ ne moom mooy ci bayt yaa ngi koy wax Euh, dafa doon sacrifié wu. Mhm. du xalaat lenn loo xam ne dakay koy lor ci yoon ba mu doon mhm. jaar. pour mhm. egg ci yeneen salaasalaam pour teral ko. yóbbu ko ay ñamam. foofu muy tarbiyo ki nga xam ne moom mooy borom këram. ñu dàngee ci jigéen dafa war a tarbiyo borom jigéen mais mais Cheikh bakar xam nga man. Euh, xam nga jabalu nuur. foofu ci xaaru xiraa. fi wax yu ba wàcc. mais yow rek nga nekk ndaw. pour nga yéeg dugg foofu rek problème la. problème dëgg la xoolal pèlerin yi bu ñu demee. Mhm. ñu bari mënuñu yéeg. mënuñu yéeg waaw ñu bëri dañu yéeg ba ci digg bi. Mhm. ñu arrêté. ñu arrêté duñu yéeg. Mhm. dégg nga ñii dañuy waxuma la dara tàngaay bi. ak affaire bi ni mu compliqué pour nga yéeg. beneen affaire la. léegi yow naka la daan yéegee jamono jooju. nekk jigéen. dégg nga fekk ko fa ci guddi fekk ko fa ci bëccëg. fekk ko ci heure bu nekk. cest à mooy soxna Xadijatu ba léegi nit ñi xamuñu sacrifice yi mu def. léegi ñun dañ koy léeg-léeg sax dañ koy taasoo taasu. taasu tagg waaw moo waaw moo yooyu taasu léegi sax dañ koy tëgg di ko fecc. Mm-hmm. ce qui Sénégal moom diine ji lépp fecc la léegi. waaw waaw yonent bi dañ koy feccee. Mm-hmm. Xadija dañ koy feccee. Mm-hmm. mag ñu baax ñi dañ leen di feccee. diine ji yëpp tëgg ak fecc la léegi. c'est grave. te waaw alxuraan sax dañ koy dañ koy dañ koy fecc. dañ koy tëgg di ko fecc. bon léegi te te def naa lu sérieux nii. ak lu grave nii. lu amee solo nii ci dundu dundu nit. lu amee solo nii ci dundu dundu dundu jullit. mu nekk model ñu wax la ne léegi xadijatu royukaay la. yoon wi mu jaaroon mu ngi nii. mais def naa nit ku yeewu jigéen ju yeewu. war ngaa def ëpp na sax ngay ñu la ñu la ciy nax di jël sa xaalis xam nga. léeg nit nit nit ñi nga xam dañuy wax si yonent bi point yi la ñuy laal. waaw <laughs> jëloon xaalis ba yóbbu jox la ko façon boo xam ne gars yi dégg nga ñu daagu ñëw jox la xaalis ni tekki or joxe. lépp nga gis ne affaire bi tey rawxaaniye bi mu amoon. Mm-hmm. sens bi mu amoon tey ñu ngi koy ñàkk. yow man baax de yow léegi diine ji lépp folklore la. dégg nga naxante la. dégg nga maam mm-hmm. tëgg la fecc la taasu la. Mm-hmm. vraiment yow boo jàngee dund soxna si nga xool sacrifice yi mu def. ak risques yi mu jël ak coono yi mu jël ak nga gis tey nit ñi ni ñu ko jàppee mhm. da ngay am kaaj kersa da ngay am kersa dangay rus mhm. defe naa point boobu Seydina Omar mhm. yaa ngi waxaat ci bayit bi ne aawat kama nasarat nasran kada baayaat kaanat li islaamina fi badihi masdara lan nga bëgg a wax foofu eh, comme ni ko alquranul karim waxee ca suratu duha mhm. yàlla daf fekk yonent yàlla muhammad amul dara mhm. fa aawaa mhm. mu daal di koy jël làq ko comme ni alam yajidka yatiman fa aawaa ndeysaan wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna ok yooyu yëpp waaw mu ñëw daje ki nga xamante ne moom mooy imam abi bakrin waxee dafa ñëw moom moo feesoon bëtu yonent yàlla Muhammad salaatu wasalaam waaw su nekkoon jamono ji tey na lañ ko wax ci terme yi xale yi di jëfandikoo <laughs> wala nañ ko <laughs> ah, <laughs> waaw nañ ko tënk fi ko imaam tënk rek waaw soobee yàlla waaw ñu imaamal ko waaw waaw awat ah, moom moo làq yonent yàlla Muhammad ci côté ci yëpp mhm. mu jël ko mhm. jox ko kër jox ko alalam maanaam jébbal ko alalam mhm. jébbal ko boppam mhm. jébbal ko xolam jébbal ko ngëm yàllam c'est-à-dire moo ko uuf moo ko uuf waaw mhm. moo ko uuf moo ko uuf macha allah dégg nga zam zammiluni zammiluni yaa Khadija zammiluni zammiluni Khadijatu sakkanat bil qalbi qailatan lan yudika allahu fi daarayni la takimi waaw gis nga macha allah noonu waaw kon loolu dafay dellu foofu noonu mm-hmm. bu yont yàlla Muhammad su jaaxlee mu dalal ko mm-hmm. la taxoon yàlla bindi bindi bindi jigéen mm-hmm. pour li taskunu ilayha lépp dafa mate woon ci côté yëpp tey jii mën foofu jigéen su la ëppalee tey jii am na yu bari yoo xam ne moom la soxna war a defal borom kër la ko defal moom kañ da ngay dang moom kañ yaay mujj nekk jabar ji yaay mujj nekk jabar ji kon gis nga <laughs> léegi fii moom en général <laughs> mu ngi noonu kon kon foofu noonu ñoom dañ fay daanu imaam waaw loolu la yow yaay mujjee nekk soxna si waaw parce que yaa waroon joxe dépasse parce que yow yaa si sax comme niñ koy mën a waxee sama <laughs> am sama benn xarit tooñkat la quoi day woo xarit bi naan ko an sa jëkkër au <laughs> lieu mu ne ko ana soxna mais an sa jëkkër la koy wax alors que subhanallah alazim lii de kenn mësu koo gis gis nga mu ngi noonu an sa jëkkër <laughs> waaw wala iyaadu billah waaw nee na ku góor ki lay wax naan ko an sa jëkkër soxna si mooy jëkkër ji <laughs> bayit boobu li ma ciy junj moo kenn aawat moom moo làq yonte yàlla Muhammad làq ko ci lépp mhm. maanaam mu jël teraanga bi mu amoon ak honneur bi mu amoon lépp mu làqi ko yonte yàlla Muhammad ci biir activité kama nasarat yemul foofu muy dimbali yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam mhm. dimbali ko ci dundam mhm. sopp ay mbokkam ku nekk mu koy defal mhm. nasran ab ndimbal goo xam ne sayyidatuna Xadija ñaata jaam la goreel dëgg la alalam yëpp mu jël ko mu ne yonte yàlla Muhammad man ak sama alal yëpp yaa nu moom waaw loolu firnde la ci Seydina Omar ku mel ni Zeyd ibnu Xaarisata Zeyd ibnu Xaarisata Zeyd ibnu Xaarisata bi nga xam ne moom moo moo doon Zayd ibn Muhammad lañ ko doon tudde bakaytu ala zaydin walam adri ma faalu ahayyun fa yurja am ata dunahu al ajalu mhm. tudakkirunihi shamsu inda tulaiha mhm. wa tarudu dikrahu idha ma garbuha afalu mhm. sa amalu nassa al aysi fi l ardi jahida wala asamu tatwafa am tasamu ibilu allahu akbar <laughs> te gis nga foofu <laughs> keroog eh, comme Seydina Omar <laughs> Zeyd gis nga bàyyam ni mu ko jooy yi mu ko doon jooy mais keroog bi mu ñëwee ba gis Zeyd yonent bi daf na ko tànnal léegi kenn tënku la bu la neex neexee nga ànd ak sa baay dem mhm. su la neexee nga toog Zeyd na ko xanaa man damaa dof mhm. man naka laa lay gisee di tànn keneen mhm. man yow yaay sama lépp xaw ma kenn ku dul yow yaay sama lépp keroog yonent bi jël ko doomoo ko ne bés ni ki tey Zeyd ibnu Muhammad léegi te loolu Seyda Khadija moom moo yilifoon Zeyd moo ko moom moo ko jënd bi mu gisee cofeel gi gi gi gi yonent bi am ci moom yonent bi ni mu bëggee Zeyd mu jël ko ko may ko moom moom amul bëgg-bëgg bëgg-bëggam mooy li yonent bi bëgg alayhi salaatu mu mu yar ko moo yar Zayd ba pare yar doomu Zayd mooy Usaamatu bnu Zayd bi nga xam ne moom la yonent bi def général bi bi mu am 17 ans mu jiite armée l'islam bi yëpp donc Xadijatu pour wax la li nga wax léegi ñi mu yar mhm. xam nga tey ñun na Ali rek la ñuy xalaat mais fàtte nañ jaam yi mu yar nga xam ne ñoom dañoo mujj nekk ay ay imma fi diin mm-hmm, nekk ay abtaalil mm-hmm. islam mm-hmm. futuhaat yëpp ci seen loxo la jaar seen loxo la jaar ngi noonu wallahi waaw imaam yàlla na la yàlla fay ci boobee seetlu bi nga xamante ne yaakaar naa jullit ñëpp ñu ngi leen di eh, dégg bépp soxnay islam mu ngi dégg ya mar a yaa mar atal islaami fam tasili fam tasili waxtari bi waxtadi ñoom ku nekk dafa ko war maanaam mu roy ci yooyee dégg parce que imaam juñu nga ko sànq tey ji euh, waxtaane ci siira mhm. ñu bare bari dañoo dem ba yàq ko mooy que dañoo néew ma dañoo wàcc yoon bi dañoo xalangu mhm. ñu bare bari mhm. parce que siira li ko taxoon a jug ci borom xam-xam yi dañ ne iqra'u taarix id fiha ibar dalla qawmun laysu yadruna al xabar dëgg la histoire yooyu dañu koy jàng pour xam ñooñee ñoom ñooy ñan fan la ñu tegoon seen tànk ba ñu ci amee xam-xam bu wéer ñu door a ba ñu itibaaro ba pare ñu ixtibaar ñu mhm. jéem a roy ci ñoom mhm. loolu rek moom moo ñu war bala mhm. ñuy dugg ci fa xalafa min baadihim xalfun kon eh, gis nga macha allah kon Khadija ci loole alalam ak mu jël ko di ko dimbale islam in tansurullaha yansurkum la alquran wax wa yusabbita aqdamakum yàlla ku ko nekkal rek mu nekkal la moom la payi di wax na man kaana lillahi kaana lahu lahu aaya boobu moom kuy doxantu ci jàkk yi yaakaar ko mokkal te yemu al badu suñ ko waxee moom mooy lan aslu kulli shay mhm. aslu kulli shay itlaqa mhm. mooy cosaanu bépp mbir mhm. cosaanu islam Khadija moom moo nekkoon cëslaaya mel na ni hmm. ci côté dépensé hmm. parce que moom moo doon dalal yonte yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam fu ñu toroxalee yonte yàlla Muhammad ci biti mu dégg lu ko metti ci biti hmm. wala mu gis lu ko jaaxal fu mu moom na xëy rek jublu ci daawa islamiya waaye fu mu xiifee delsil ci kër gi dina fekk lekkam pare fu mu ñëwee dina fekk la mu war a sol pare fu mu ñëwee dina fekk fa mu war a tëdd noppalu pare waaye kër gi su fekkee dañ fi bàyyi aawo boo xamante ne loolu yaakaar naa yéen ñi subhanallah yéenay xam am xam-xam ci côté boobu noonu waaw foofu moom danga foofu doo fa sori du ma ci sori incha allah <laughs> du ma ci sori incha allah <laughs> mën naa fekk ay weer su ma ñëwaatee naa ci sori incha allah imam daal ci tënk ci bayit boobu daal incha allah mm. foofu daal lañ ko euh, lañ loolu lañ doon mm. tënk ci bayit boobee suñu ko doon yaatal mm. comme ni nga ko waxee bu ci nekk teemu boppam la dëgg la mais mais Seydina Aboubacar mm-hmm. xam nga dañu nekk ci réew moo xam ne mm-hmm. lu ëpp si suñu diine dafa jëm ci sentiment mm-hmm. dégg bon léegi te yow xam nga man xam naa keneen xam na mhm. Mhm. ñun sunu maam yu baax yi xamuñu seen histoire mhm. comprendre nga même maam yu jege yi sax xamuñu histoire bi lu ci bëri nuñ koy nettalee nekkul demeewul noonu ñi ñiñ bokkal dëkk sax laa wax waxuma laak nag ñii nga xam ne tey ñooy référence wu jullit yu ba ilaa an yarisa allahu al arda te tey wax dëgg yàlla munoo wax ni sénégalais yi bëgguñu yaay xadijatu mais wax dëgg yàlla xam-xam bi des na ak tamit roy gi des na ak méthode bi ñu koy jàngalee des na mhm. loolu ban jàngal nga ciy def mhm. kooku li ma si am comme jàngat bu si njëkk moom mooy damay dellu tuuti ci liñ doon wax ci Sayyidatuna Khadija ci wàllu ni mu doon financé si yoonu yàlla maanaam dimbal yeneen sa si alalam alayhi salaatu mais en même temps aussi tamit euh, man baul wax yu mm. nga xam ne euh, gongeeku waayu wax yu muy alquranul karim ci mm. moom la dooree moom Sayyidatuna Khadija dëgg la nga xam ne bi yonent salaam bañ ko ne iqra bismi rabbika alladi xalaq ba mu ñëwee Seydina Xadija moom moo ko jàppale mm-hmm. mu ne ku ko njëkk a gëm léegi foofu ñu jàngee fa ni yeneen gannaaw yeneen salaam ci umma ji mhm. Mhm. ci umma bi ci umma bi waaw waaw mais danañ la dañ lay jéggal wolof yi ngay waa waaw très bien <laughs> ab ab saraxu la ah. buy làkk wolof dañ koy jéggal quoi <laughs> waaw waaw <laughs> maa rek soninke ko koy waaw soninke soninke waaw allah macha allah kon umma gannaaw yeneen sallallahu alayhi wasallam ci ci ëppale tiyaaba yiw sayyidatuna Xadija la dëgg la allahu loolu li tax parce que yeneen sallallahu alayhi wasallam dafa tëral système am système bi mooy ku képp ku mu dugal ci lislaam moom am na ci yow yoon ak yiw dëgg la yow it képp koo xam ne yaa ko dugal ci lislaam am nga ci moom yoon ak yiw mais yeneen saa am na ci yow am ci kooka tamit ba ilaa yawmi diin allahu akbar te sayyidatuna Khadija mooy ki njëkk dugg ci lislaam njëkk embrassé l'islam allahu moom yamul ci dugg ci lislaam kese mais dafa dooleel l'islam hmm. dafa jël jëmmam alalam xalaatam taawam léppam moy mooy de deux mongo moo ngoog yeneen ti mooy raqmul awwal loolu dellu ci li ma kaanat eh, fii awal li islamina fii badihi masdara masdara masdara waaw mu ngoog koy lu waay def ci l'islam depuis jamono jooju ba ilaa yawmi diin xarijatu am na eh, ci tiyaaba am na ci tiyaaba fa eh, man sanna sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man amila biha waaw waaw ilaa yawmi qiyaama waaw allahu akbar nga gis ne kon mhm. wàllu boobu tamit moom yàlla may na ko fa privilège boo xam bu yéeme sax mhm. beneen yi moom mooy eh, fi nga doon wax sànq noonu mooy suñu réew mi tey mhm. bu ñu xoolee wax nañ ci wax yu tey dafa am benn aaya boo xam il faut nit ñëpp ñu taxaw ci seetlu mhm. suñ borom subhaanahu wa taala muy wax ci suratu Saad ne mhm. kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyaddabbaru aayaati mhm. liyadabbaru ayaatihi wa liyatadakkara ulul albaab mu ne ab téere ngi nii dama ko wàccee ci yow dama ko wàccee ci yow kan la doon wax yonent bi yonent saa saa dama ko wàccee ci yow kan lay waxal tey jii nii mm. muy yow kan lay waxal tey muy yow mm. kan lay waxal tey muy man waaw li yadabbaru ayaati al ibra waaw bi umumi lafdi la bi xusuusi sabab la bi xusuusi sabab kon kenn ku ne mm. ilayka bi mi ngi jëm ci yow yàlla ne nag kon ñun la ko envoyé yow en tant que yow yow la concerné mm-hmm. léegi nag mu ne ne wàccee naa ko ci yow léegi foofu lay am muy quwwatu talaqi mm-hmm. mooy yow jot message bi li ñuy wax la capacité de réception. Mhm. jot naa message bi léegi. Mhm. léegi nag man mooy problème bi ñu am léegi foofu laay ñëw. Mhm. lan moo xew léegi léegi ba nga jotee message amul benn sénégalais wala benn julit ci àddina bi loolu rek jot na ci alxuraanul karim yor nga kaamil boo ko sa portable. mi ngi sa kër wala waaw mi ngi jàkk dingay julli. léegi nag mi ngi mi ngi ci yow. léegi nag lan moo war léegi sa diggante ak alxuraan mu ne li yadabbaru aayaati. ngir ñi méditer ay aayam. foofu nag moom fii ñëw taxaw nag moom mooy lan mooy li ñuy wax euh, li ñuy wax la capacité de de d'analyse wala de de raisonnement et d'analyse foofu nga xam ni léegi yow raisonnement bi nga war a am léegi ci alquran mooy léegi man naa ko médité naa ko jàngat naa ko settantal naa def ay analyse naa def ay diagnostic naa def ay études yu profond yu xoot parce que téere bi ñëw na ba mu ñëwee man la concerné mais bàyyiwul dara su ma ko xoolee gëlëm léegi nag moom lan moom war léegi mooy suñu borom nee na naa communité méditer hmm. c'est pas pour rien mu ne ma méditer alquran waaw léegi nag foofu mooy premier point bi léegi méditation bi dafa am yu muy àndal hmm. ñett la hmm. maanaam ñett ko séq xel mi ak xol mi ak téere ji xol mi ak xel mi bu ñu communiqué wul rek problème day am ñun nag suñu xel ak suñu xel euh, xol du ñu mooy xol bi day jël te du waxtaan ak xel xel tam bu jëlee ak xol nag du diisoo ak téere ji que loolu mooy problème bi ñuy dund tey Sénégal. Mhm. dafa am infisal daal. waaw infisal bu yéeme sax waaw dëgg la. waaw infisal shabaki boo xam ne. bu nakkit kay. waaw dëgg la bu yéeme. waaw léegi nag communication boobu waroon am seen diggante. Mhm. xam nga xool tey fa lépp di reposé wu. dëgg la mais xel moom mooy settantal mooy xool. moo tax mhm. yàlla jox ñu xel gannaaw bi mu ñu joxee téere ji mu jox ñu xel mu ne nañ utiliser xel boobu pour xalaatee ko. mooy que ni qul innama aidukum bi waaxida an taqumu lillahi mathna wa furaada summa tatafakkaru summa tatafakkaru xel foofu mooy place am moo tax ñiy dugg safara ëllëg ñi si ëpp mm. la ñuy njëkk wax ne mm. mooy tax ñoom ñu dugg safara wala moo tax ñu dugg safara mm. mais dañuy wax ne wa qaalu law kunna nasmau aw naaqilu maakunna fi ashaabi sair mm. bu fekkoonte daan nañu déglu di dégg mm. wala ñuy xelu di xalaat ak suñu xel mu ne kon ñu bokk ci waa safara yàlla ne nag moom ba ma xambee safara ci jinne ak ay nit li ko waral ñett la dama leen jox ay xel yoo xam ne ko mm. xalaate jox leen ay bët yoo xam duñ ci gisee jox leen ay mangoog ulaayka kal an'am bal hum adall ulaayka humul gaafiluun mm-hmm. léegi nag ñun xel yooyu lañ dul utiliser xam nga tey suñu newee xel ak xol chaque fois dama ciy waxtaan démb rek am nañu ma si doon waxtaanal mm-hmm. ñu war a communiquer donc euh, yu mel ni benn borom xam dafa naa xarit loolu mus naa wax benn wax. Mm-hmm. ma jàngee ci wax jii nii. Mm-hmm. Euh, mu ne nit dina jóg tey jii nii ñàkk utiliser xelam mu ne man dama bëgg am gudd fan ak wér. Mm-hmm. léegi nag ñu ne la am na benn waay yoo xam ni ngi ci ruq nangam sàngam wala dëkk sàngam wala place sàngam. bu njëkk dañ daan làqatu sax muy gisaane kat yeeg yu mel noonu. ak euh, njabarkat yeeg yooyu. mais tey xam nga làqatutuñ ñi ngi fépp léegi léegi moom moom dañu lay attaqué sax dañ lay dañ lay kii sax nuñ koy attaqué ñëw fekk la fa nga nekk ñu ci ay message wala ci télé bi wala ci rajo bi wala fu ne ñu taxaw fa léegi di waaw léegi nag nit ki jóg mu ne damay dem seeti kooku pour lan pour mu jox ma loo xam ne day tax man ma gudd fan mhm. nga dem mu jël ab béjjén mu jox la mhm. nga war a takk béjjén boobu ngir nga gudd fan yow mhm. ñu ne léegi yow sa xol ak sa xel nañ waxtaan léegi nag nañ waxtaan ak kan nañ waxtaan ak béjjën mm-hmm. ñu ne waa béjjën e eh, foo jóge béjjën ne man maa ngi jóge ci bëy wala ci xar wala ci nag mm-hmm. ñu ne waa léegi ana bëy béjjën ana bëy ana xar ana nag béjjën na ak ah, ñoom ñëpp dee nañ bi mm-hmm. ah yow nga nekkoon ci xar ak nag ak ak ak nag ak ak ak kii nu mu tuddee sax bëy euh, ñoom ñëpp ñu dee nga bëgg a ñëw ci man ma gudd fan xam nga loolu xel nangu ko amee ah, toppal fële kon nag noonu la exemple la rek. xel ak xol dañu war a waxtaan. mais suñu ñàkkee waxtaan rek maanaam su xel nag ñàkkee seetlu. xelu xalaat utiliser la nga xam ne moom la ko yàlla jox moom nit comme xel nga xam ne mu nekk benn kii boo xam ne élément boo xam ne bu ëpp solo ci lu mu ko jox muy xel. Mhm. parce que moom la ko wuuteeleeg ak bahima yeeg animaux yeeg jur yeeg yooyu. boobaa nag lan mooy judd mooy tooxi dooni xool day jàpp te du mu jàppee du noonu day def te ni muy defee du noonu dafay jaamu yàlla ci ignorance si jaxl mooy li dal tey suñu société tey beneen bi moom mooy lañ leen waroon orienté ci ñu xam ko mu dimbali leen ci lislaam bi defuñu ko mooy ci ay côté sentiment wëy fecc caaxaan taaxuraan yi mel noonu ci lañ doon tënk loolu si loolu la ñu tënk euh, askan bi ba ñu fàtte la nga xam ne moom mooy source yi dëgg-dëgg moom mooy li ñuy wax principe yi ak la nga xam ne moom mooy texte yi mm-hmm. ba nga xam ne léegi ñun dañuy basé wu ci ay jëmm basé wu ci ay xalaat léegi ñun na tënkootuñu ci ay principe ak ay texte te al islaamu nusuusun wa mabaadi mhm. nataallaqu bin nusuusi wal mabaadi wala nataallaqu bil asxaasi wal aara loolu mooy problème bi moo tax tey jii ni boo gisee tey ñu am problème suñu penc mi mhm. loolu moo tax mhm. boo xoolee bi euh, suñu raq ji jarbaat la xaw ma raq laa koy tuddee ba tey jëlee concours bi nga xam ne mooy concours bi mag bi ci alquraanul karim Mujtaba Mouhamad Mujtaba Diallo waaw ndax man Moustapha Diallo Sénégal yëpp kontaan na ñun ñëpp fierté la ci Sénégal macha allah alhamdulilah loolu lu rëy la mhm. mais man dama tiit man li tax ma tiit mhm. mooy ñu fekk société bu leen di Sénégal tey nga xam ñun kenn ku ne bu toogee xool alquran baqara banaas fatiha baqara banaas mhm. yamal ci fatiha rek nga bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nga nattuñu fa ñun problème shirk ñëw problème mu shirk boo xam ne dafa jiggi dayoo waaw yi fi shirk yi firaaw na mosul def sax Sénégal fii lay xewe yàlla def nag ñun ñi ñu jël nag concours alquran nag ñu ne ñeen dàq jàng alquran ci àddina bi loolu lan lay tekki lan ngeen si jàngat mm-hmm. waaw mooy gannaaw bi ñu tollee fii nag yàlla ne nag moom ne ñu yéen bëgg naa leen ba tey de hmm. dama leen bëgg xettali dimbali leen delluwaat leen ci alquranul karim mu jël ndam ñu jox ñu ko ngir ñu ñëpp ñu dellu ci alquran yàlla ba mu joxee yeneen ci bi alquranul karim ak sahaaba yi ñu yor ko yoruñu ko woon ngir feccee ko wala tëggee ko wala taggaatee ko wala def ko téere boo xam ne suñu amee ay jafe-jafe rek ñu jàng ko hmm. suñu tollee si ay diggante ñu gëstu xool ko hmm. suñu bëggee wàccee ay kaamil la ñu am ak moom relation suñu paree pare nañ ci def ko ay meuble def ko ñaanukaay def ko loo xam ne daal maanaam dafay nelaw mhm. alors que li yundira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkafirina mhm. kon mhm. ñu delluwaat ci alquran mais tamit ñu bañ a bàyyi maanaam ñu bañ a sàggane yi nga xam ne wax naa ko sànq moom mooy suñu xol ak suñuy xel dañuy communiquer waaye bu ñu communiquer tamit la la ñuy orienté man xaj bi nga xam ne yaxrusul aql moom mooy sàmm garanti xel moom mooy alquran nañu diisoog alquran barakallahu fikum jërëjëf mu mel ni li ñu am si waxtu mu ngi waaj jeex uh-huh. tey boo ñu doon tënkal uh-huh. pour jigéen ji lay déglu uh-huh. nga xam ne moom mbaax rekk ko ñor moom mu ngi bëgg a xam lu baax ci Xadijatu ba roy ko yan yan loo leen di tënkal pour ñu mën koo roy uh, imaam jërëjëf hmm. wax dëgg fi yàlla loolu nekk euh, laaj bu amati solo mm-hmm. yàlla nañu ci yàlla buru subhanahu wa taala barkeel mm-hmm. ak taaliq bi nga xam ne moom la imaam aboubacar mujjee def ci alquranul karim mm-hmm. mu nekk téere bi nga xam ne ci laa waxee woon ne hada alkitabu alladi man baata yaqra'uhu qad baata yuxaatibu arrahmana bilkalimi hada alkitabu alladi fihi alxikam mulia dabbirhu ya aqilan tanju min aljahami yàlla na yàlla buru mais yow yow yow maanaam li ngay wéy nii <laughs> man daal séeréer buy làkkee nii arab jaaxal na ma quoi <laughs> mais lan mooy lan mooy sirru bi lan <laughs> ah? dama di seen ndong rek. déet déet déet lii kañ jàngaluñ la ko ñun. <laughs> dama koy tënk ci béppi béppi ndong boo xam ne moom may dégg ci àdduna bi. dama waxoon ci benn bayit. ku ko topp di nga am xam-xam. Mm-hmm. yaa taalibal ilmi. Mm-hmm. yaa taalibal ilmi jud jad jid lam limil kutuba. Mm-hmm. xifdan wa fahman bila yaasin wala saami. nga ni jud jad. jidd lam limil kutuba xifdan mm-hmm. ah. wa fahman bila yasin mm-hmm. wala saami macha allah mm-hmm. macha allah bépp ndong bu takkoo loolu rek insha allahu taala eh, mu topp ci ginnaaw borom xam-xam yi <laughs> bu soobee yàlla insha allah <laughs> <laughs> dama lay bépp ndong kuy wut xam-xam judd na nga tabe ngir xam-xam lépp loo am li ma jaay téléphone pour jëndi téere bu la ko kenn wax sama waajur demoon na ba sama xaal eh, pour ma jënd yére tabaski daan daanu ma ko jox ci loxo suñ ma ko joxoon damay dem ba pour jënd yére ca marché ba jëndee ko te euh, téere wàññeeku mm, ñaareel ba moom mooy jadd mm-hmm. waaw mm-hmm. na nga góorgóor pour am ci cër fexe ci am sa cër mm-hmm. waaw al jaddu ci araat moom mooy cër al jaddu bil jiddi wal xirmaanu bil kasali dañ koy jàngee ca daara waaw bi ci dëgg bi ci mujj moom mooy jidd mhm. nga góorgóorlu bi qadril kaddi tuktasabul maali mhm. wa man talaba al ula sahira layali tarumu al iddatu ma tanaamu layla mhm. yaguusu al bahra man talaba al aali ñett yooyu ku ko def insha allah lam limil kutuba moom mooy jàllar bil téere yi ngay xam li ci nekk xifzan wa fahma ngay mokkal te jéem a xam li ci nekk bila yasin wala sa ami loolu am na lu ma ci bindaatoon waaye sañu ma ci sori waaw nañ wax ko tënk foofu mu am ñett yoo xam ne nag mu am ñett yoo xam ne nag mhm. dafay yàq loola dafay mhm. contrecarrer loola bi si njëkk moom mooy pares tayal tayal alkasal alkasal waaw beneen moom mooy alxawfu mooy ragal peur waaw ñetteeli moom mooy les mauvaises habitudes waaw uh-huh. al aadati sayyi moom ngoog si bokk mhm. mooy uh-huh. temps yi ngay yàq ci leneen si seetaan match yi si werante si Barça euh, Barcelone ak Real ak yooyu werante ci ay football ak ci caaxaan ak ci lamb ji ci yeneen benn na ma ndaw ñi ñaarale tardel ataaya ak Barça ak Real mango loolu ma mag moom c'est ça parce que moo tardel tim ci benn livre rek livre bu mu mënta doon tiim ko jàng ci rek nga avancé léegi ñu ngi ñu ngi jeexal ni léegi léegi tënkal ma euh, njàngale jikko yoo xam ne ki lay lu mën na ko roy ci ay xadijatu ah, waaw euh, soxna yi yaakaar naa ñoom ñu ngi ñuy dégg mm-hmm. yaay xadija bi ci njëkk mm-hmm. xoolul woon tolluwaayam mm-hmm. dafa xool tolluwaayu li mu bëgg parce que islam dane ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa dawijuhu mm-hmm. mm-hmm. ki nga xamante ne gërëm nga ci moom ñaar yi mm-hmm. diineem ak jikkoom na nga ànd ak moom li ñu naan fu mu yem neex eh, li ci des mooy que ne liñ fi dégg eh, bari na waaw ah, léegi de sëyu léegi looloo fi xam fu mu yem neex <laughs> waaw waaw fu mu yem ne xam nga séeréer bi dafa commencé dégg wala ma tax <laughs> ak saraxu léegi <laughs> eh, moo tax fan yële weesu maa ngi def benn émission Thiès di làkk séeréer yoo xamante ne waaw naa fi ñëw imam mu làkk fi ay séeréer non moom kañ bu temps bi xatul woon li ñuy wax di ko tëkk ci séeréer ba ñëpp xam ne dégg naa séeréer <laughs> la xaw na naqotee la billa samay mbokk samay mbokk foofu ñu dégg ma waa macha allah ñaareel ba mhm. Euh, comme que waxtu wi jot na mm-hmm. lépp lu ñu fi dégg ci soxna Khadija mm-hmm. wallahi nañ ko roy mm-hmm. te mbokk yi soo xoolee soxna Khadija ak tolluwaayam ci islaam xoolal li ko yàlla nattoo muy bi gën a jege doomam yu góor yëpp a teel a génne aduna tey jii soxna su ko yàlla nattoo ñu ne dafa ay gaaf kon muñ xoolal baytul di mu ngi lay xaar mm-hmm. ku yàlla dénk ab doom mu jële ko fi mm-hmm. muñal ngir yàlla buur bi subhanahu wa mm-hmm. taala bu aljana yàlla jox la pale boo xamante ne di nga naan su ma sañoon sama doom yëpp dee a sax man itam ma ànd ak ñoom allahu euh, kon imam ci tënk rek jërëjëf jërëjëf euh, waaw <laughs> xam naa ne tey euh, wax dëgg yàlla <laughs> temps bi moo xat waaye aspect bi tamit am na solo si Cheikh ah. Aboubacar mm-hmm. euh, xale bu toll ni Seydina Omar mm-hmm. def xasida bu rëy bi rek euh, waxuma sax li mu wax ci yaay Xadija mais niveau arabe bi ak littérature bi wax dëgg yàlla dina nekk ñaax mm-hmm. ci xale yi sàkku xam-xam ñu gën a góorgóorlu parce que lii mooy ndono ah mhm. waa ñun mooy ndono ñun xam-xam lañ doon mhm. waaw moo tax léegi boo gisee yenn niveau yu faible yi mhm. dangay ruus parce que nit ñi nangootuñu jàng nango dañuy li imam daam doon wax naan bu njëkk xaalis dañ daan lijjanti mais léegi xam-xam la ñuy lijjanti <laughs> léeg-léeg gis ko toog di def di def waxtaan da ngay tiit wala nga gis kuy toog du toll ni émission diine ñu jox la àddina yëpp di la gis te yow jànguloo ko vraiment loolu dafa dafa dafa tiitlu donc Seydina Omar looloo tax euh, incha allah ngeen nekk ay modèle ci ndaw ñi waaye nekk ay modèle ci mag yi incha allah euh, mbokk yi ma leen di yëgal ne suba li Seydina Omar junj mooy yaay Xadija muñ yi mu muñ mhm. natt yi dal ci kawam mhm. suba mooy doon suñu émission fii bu soobee yàlla euh, beneen bi nga xam ne moo ciy tegu mooy ni ko yonent bi bëggee woon ak fidélité bu nekkoon seen diggante mhm. troisième kii bi ñu conclure nag dugg ci yaay Aïchatu incha allah seex naa Aboubacar jàngal ñu suratu iqra ñu tëjee ko émission bi incha allah xaw naa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 يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 مولاي صل وسلم